ñëw fekke ndaje bi pour résolution bi nga xamante ni ñoom bëgg nañoo fësal wane ni yow mii di madame la maire tey de la ville de Dakar yàlla ci mbaaxam ak dogalam mu def la nga doon la première femme maire de la ville de Dakar loolu ñuy fësal seen jàppale ak ànd ak yow ci liggéey bi ñu jot liggéey ak fi ñu jëm ëllëg war ko wan Dakar waay foofu la ñu tolloon may expliquer bi 2014 le président Khalifa Ababacar sàll xew-xew yooyu amee mu ni intérimam kenn doyu ko ci kudul madame la su am Wardini bi nga xam ni àndoon ak moom di liggéey te mu xam ni vision bi mu am pour Dakar moom mii mën na ko réaliser ndax ñoo bokk nu ñuy doxalee ñoo bokk ay valeur bi ñu demee ba procédure yooyu di gën a yaatu ba nguur googu li mu bëggoon muy foqati mbir mi ci loxo la président Khalifa Ababacar sàll le président Khalifa Ababacar sàll joxoñ ko moom ni ko Soham El Wardini bu dul yow kan lay doon ci ma tànn la ñaan ko conseil municipal bi ak képp ku nekk taxawu dakaar ñu falaat ñu fal Soham Wardini mu nekk madame le maire de la ville de Dakar bi eggali vision bi nga xamante ni le président xalifa Ababacar Sall amoon na ko pour lee les Dakarois loolu bi mu amee lépp loo xam ne ñun conseillers municipaux yi gisoon nañ ko ci vision ak projet yi président xalifa Ababacar Sall amoon lu mu ci yokkul moom madame le maire lu mu ci yokkul wàññiwu ko mu ñëw def une gestion saine une démarche participative équipe municipale bi àndandoo di liggéey ba looloo indi ci fan yu néew di ngeen am ci biir campagne bi ñu war leen a bilan bi nga xamante ni liggéeyal nañ ko Dakar waaye ak fan lañu jëm ak ñoom di fàttali rek ndax fàttali dafa am solo suñu boroom moo ni fa zakirina na zikra del fàttali ndax nit kuy fàtte la muy jëmm ji toog àndam ak le président xalifa Ababacar Sall xëy na sax yàgg na tàmbalee ca Bennoo Siggil Sénégal 2009 waaye rek su may gaawal damay ñëw ci 2014 moom mii membre fondatrice la bu taxawu Dakar bi nga xamante ni tey mooy porte candidature bi ndax taxawu dakaar moo màgg ba doon taxawu Sénégal taxawu Dakar yàlla dogal mu ànd ci ak le président Khalifa Ababacar Sall 2014 mu diriger listu maire yi commune bi nga xamante ni mooy Mermoz Sacré-Cœur ma leen di leeral ni jëmm ji toog moo doon test tête de liste Mermoz Sacré-Cœur ma leen di leeral ni jëmm ji toog moo gagné 2014 Mermoz Sacré-Cœur ma leen di leeral ni jëmm ji toog ci dégg ndigal fas yéene liggéey ak le président Khalifa Ababacar Sall ba mu gagné Mermoz Sacré-Cœur en 2014 la ko président Khalifa Ababacar Sall ni ko man maa lay ñaan ni ñu mel man ak yow ci àndandoo mën liggéey nga bàyyi commune bi ñëw man à la ville de Dakar mu mel ne xalifa visionnaire la bu gisoon lii war a xew ni ko nga ñëw ak man à la ville de Dakar mu def ko première adjointam ñu ànd ci liggéey bi loolu moo jur ba ni mu remplacer xalifa Ababacar sàll fii ci mairie bu Ndakaar loolu du hasard lu yàlla suñu boroom dogal la loolu nag bi mu amee mu liggéey fi liggéey bu am solo conseil municipal bi comme mësuñoo réeroo surtout ñun ñi nga xamante ni ñoo àndandoo woon ànd ak le président xalifa Ababacar sàll pare ànd ko ak moom ñu gis li ñu jot a liggéey Dakar waaye gis ko ñu gis naal bi ñu am nga xamante ne Dakar fii ñu jëm ci moom taxawaayam ñu respecté Dakar fépp ci àdduna bi ñu gis sommet yi gën a mag ci àdduna bi war a am Dakar ñu gis mille JO 2022 yi war a am fii Dakar ñu gis sommet bi nga xam ni wàllu ndox eau fii lañ ko war a waxtaane ci Dakar ñu gis li nga xam ni forum économie solidaire yi àdduna doon xëccoo mu war a njëkk am Afrique muy amee ci Ndakaaru ñu gis ni moom en rien de temps mu nar a def Dakar capitalu Afrique loolu ñu war a waxtaan ak Dakar waaye fan lañu war a jëmalewaat bilan bi ñu ànd ak moom ni ko ñun dañoo pare pour sampaat sa candidature nga jiite ñu continuer li ñu naal ak askan wi waaye nag moom jigéen la joo xamante ni baaxoowul wax lu bari liggéey tekk ak am kilifa lañ ko xamee mu ni ñu dafa am fu ñu bokk man dama bokk taxawu Dakar bokk ci membre fondatrice yi taxawu Dakar boobu lépp lu may def taxawu Dakar a koy def mooy moom mu nekk candidate à la candidature de Yewwi Askan Wi ci biir taxawu Dakar taxawu dakaar nag bokk ci coalition ndax taxawu dakaar moo màgg ba jur taxawu Sénégal taxawu Sénégal bokk ci coalition bu tudd coalition Yewwi Askan Wi donc coalition yeewi Askan woowu am charte bu mu teg am ay circulaire yu mu génne mooy xamal ni ñoom ñi ànd nga xamante ni ay parti politique yu bëri la ak ay mouvement gox-goxaat yi dana am ay xëccoo yuy am waaye élection yi ñu jëm charte yii lañ ci nar a demee charte yooyu ñu ci nar a demee mooy képp ku ci nekk fi nga bokk fa ngay déposer sa candidature foofu nga bokk ñoom ñooy tànn benn candidat benn candidat bi ñuy tànn moom mooy ñëw doon candidat à la pour Yewwi Askan Wi par rapport ak poste x wala y maanaam lu mel ne mairie ville de Dakar moom nag dafa mës a tënku ci kilifteef mu defe ko ni ko charte bi waxee mooy ci biir taxawu Sénégal taxawu Sénégal mooy def képp kuy doon candidat taxawu Sénégal moo lay defal lettre d'accréditation wane ni moom taxawu Sénégal mandataire bii nga xam ni xalifa Ababacar sànn moo ko tànn muy Cheikh Gueye wax na ni yow taxawu Sénégal investir na monsieur X ou madame Y mu nekk candidat taxawu Sénégal à kandidatur candidature de Yewwi Askan Wi ndax lii leer na loolu ba fi ñuy wax ak yéen amul kenn koo xamante ni bokk nga taxawu Sénégal ku am këyit woowu ma baamu ndax mu leer dama ni amul mbindeef bu nekk tey ci biir taxawu Sénégal bu la mën a wax ni candidature Dakar ni ko chart bi waxee nga xam ni dañi parti yi ak mouvement yi ñoom ñooy déposé parti bu ci nekk benn nit ngay déposé ci poste à pourvoir bu mu mënti doon nga xam ni dañ lay jox lettre accréditée wane ni taxawu daka Sénégal moo ni Soham Wardini bii par exemple def investir nañ ko pour mu nekk candidat à la candidature bu taxawu Sénégal ci biir Yewwi Askan Wi loolu amagul ci kenn tey fi ñu toll mooy taxawu Sénégal choisiragul kan mooy doon kandidaawam wam à la ville de Dakar madame le maire nag wax ji bari ñi ñuy interpeller bari Dakarois yi nga xamante ni bi mu egsee dafa boole en plus de sa loyauté en plus de sa fidélité en plus de d'avoir porté haut le flambeau qui a été allumé par Khalifa Ababacar Sall mu tënku ci kilifteef jaarale lépp fa mu ko war a jaarale nit ñi xëy rek di dégg ni diw du doon candidat comme madame le maire wala nangam mu laaj. ñu taxaw ak askan wi leeral leen ñu xam ni jëmm ji toog di madame le maire Soham El Wardini est bel et bien candidat candidate à la candidature de Yewwi Askan Wi ci biir taxawu Sénégal loolu ñu bëgg mu leer ci bopp ñépp gis nañu nag ay notes yu bari yu génn waaye yooyu jàpp nañ ni jarul solool ndax toll nañ ci moment yoo xam ni ay manœuvre politique ak ay comploteur ak ay mbir bari na fi lool waaye lenn rek la ñuy wax mooy décision bi taxawu Sénégal moo koy jël le président xalifa Ababacar Sall ak équipe ñooy décider ni diw mooy nekk candidat taxawu Sénégal à la ville te loolu ba fii may wax ak yéen beneen information boo leen ci jot que ni loolu amagul jàpp leen ni c'est une info information erronée c'est une fausse information taxawu Sénégal eggagul foofu c'est de la manipulation ngeen xam ni aussi fi nga xamante ni fa jëm mooy élection locale yi yàgg nañu dundu yu mel nii waaye dañ ni ku am kilifa du gàggandikoo ci mbedd mais it askan wi ak militant yi mënuñu leen bàyyi ñu jaaxle am njàqare yaakaar ni madame le maire nekkul candidat ci loo xam ne ñoom dañ ko ci doon xaar moom nag candidature am ni ma ko waxee da ko weesu moom ñun ñii fa ñu dëkk gox ya ñu nekk madame le maire mii falu ju fa dañoo jubóog suñuy mbokk waxtaan ak suñuy waa dëkk ku ci nekk sa commune kilifa yu mel ne suñu papa Mansour Tambédou mii Aminata Diallo mii xalifa euh, formé Nafissatou wadd bii nga xam ne ku ne xàmme na ko di jigéen ju mën góor nekk HLM nga gis Dakar dans sa diversité et les différentes communes nga gis taxawu Dakar ci composition bi nga xam ni mooy composition taxawu dakaar mooy parti yépp nekk ci doonul rek nos frères et camarades socialistes mooy la composition de taxawu dakaar taxawu dakaar maanaam lii ngeen di gis nii la dafa bari ay parti yoo xam ne ñoo ko composé loolu nag saa yuñ ci eggee ci ay moment yu mel nii bari na ay manœuvre yu daan am bari na ay manipulation yu am waaye ngeen xam ni taxawu Sénégal tànnagul te di ngeen dégg dans les quarante-huit heures rek que diw ak diw ñi ngi leen di woo ñi ngi xool kan ak kan mooy nekk candidat waa bu dee loolu am na kon naka la ñuy waxee ni tànn nañu ba pare wala diw naan moom la ñu nangu candidature am bañ candidature keneen commission yi aussi bu dee ñun dañoo nekk ay alliés di ànd mais la logique d'une alliance kay ku ne xam na ko mais commission bu bëgg a nekk à la limite benn cour suprême wala ministère de l'intérieur ay diw egsi na telle heure balaa telle heure forclos nañ diw annulé nañ diw yooyu amaluñu solo li ñu amal solo mooy li nga xamante ni mooy am dans les jours à venir te taxawu senegal war ci jël décision lii lañ leen bëggoon a leeral ba mu leer nàññ ci seen bopp en wolof doog leen a defal résumé bi en français am motion boo xamante ni sama sœur madame Aminata Diallo day ñëw fii ma toog liir ko defaaleel leen résumé bi en français nga xamante ni danañ da ngeen xam ni conseillers municipaux yi ñu ngi ci ginnaaw madame le maire pour ñu continuer la vision du président Khalifa Ababacar Sall porter par cette brave dame portée par cette dame de fer portée par cette dame loyale portée par cette dame fidèle bi nga xamante ni Ndakaaru mooy laajaat mu taxaw wane bilan bi ñu continuer li ñu war a liggéey pour les Dakarois ma sœur Aminata Diallo nga ñëw liir motion bi waaw